mooy jataayu fàttalente yi te ñuy dellu ci njàngaleem sëriñ bu mag bi ci téere boobu nga xam ni Cheikh Abdoul Ahad moo ko dajale ñu koy wax majmoo ñu dajale fa li nga xam ni moom la sëriñ bi daan tomb ay tomb daan ko jàngale ak tontu yi nga xam ni sëriñ bu mag bi daana ko tontu ak lenn ci fàttali yoo xam ne sëriñ bi daana ko dénk ñi nga xam ne ñooy murid yi muy téere boo xam ne rek bu ci taalibe bi sukkandikoo dana ko dimbali ba mu mel ni moom daa jataay ko sëriñ bi ci zahir ndax bu fekkee sëriñ baa ngi tomb mu jàpp moom la sëriñ bi tombal wala sëriñ bi di dénkaane mu jàpp ni dénkaane loolu moo ko moom wala bu sëriñ bi tontu mu jàpp ni moom la sëriñ bi di tontu loolu dana ko dimbali ba mu mujj mel ni mook sëriñ bi ñoo bokk jenn jamono joo xam ne ñoom lañ doon dundandoo ci zahir dénkaane bu tey bi nag. sëriñ bi daf ci doon wax ni ki nga xam ni mooy yonente bi sallallahu alayhi de dafa mel ni li nga xam ni moo tàmbale woon ci aadama salaam ci Isa ibnu Maryama alayhi salaam ñoom ñëpp dañoo mel ni ay ndaw lañu woon yoo xam ni yonente bi sallallahu alayhi moo leen yónni woon ci tool bi nga xam ni mooy toolub lislaam bi ñu doonoon ay jëwriñ ay jëwrinam yoo xam ni ñoo ko doon taxawul tool bi di ko ci jitu bi nga xamé ni mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewna ci zahir ba ni nga xamni non la dematé ñi nga xamni ne ñoo fi ñewat ginaaw ñu leen woyé ak tab ak ay nitu yalla ak ay waliyu da melni ñom ay jëwriñ lañ yoo xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen denk tol bi di leen ko samulo nga xamni lepp luñ ci def rek ñi ko doon def ci ndigalu ki nga xamni mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi nak ah, serigne bi nak ni suñu borom subhaanahu wa li nga xam ni moom la bind ci ay malaaka ak li nga xam ne mooy ay wàlliw kenn xamul seen lim dëgg-dëgg nu mu toll ku dul ki nga xam ne mooy seen borom mu daanele ko aaya alxuraan bi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala ci wax ni wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa mooy soldaar suñu borom yi daal kenn xamul nañu toll dëgg-dëgg ku ki nga xam ne mooy seen borom sëriñ bi nag wax ba tey ni ci ndenkaanam ni ki nga xam ne mooy sëriñ bi nga xam ne dafa gindeeku ku xam boroomam nee na kooku de bu taalibe ñëwee ci moom di sàkku mu yóbbu ko ci boromam nee na day dox ci digganteem ak seytaane mooy da koy soreel seytaane waaye nag mënale koog boroomam mooy taqale koog boroomam muy fexe ba mu nekk koo xam ne kuy mën ak boroomam ba tey sëriñ bi di wax ni jaam bi de bu fekkee dafa jublu boroomam góorgóorlu ci ndigal yi fexe ba sori mboolem tere yi bu ko defee de ba yegg ci boromam nee na heure bu waxee boromam ni ko sama borom man de dama sopp lii suñ borom daf koy daal di wax ni ko jëlal loolee nga xam ne moom nga sopp bu ne ah suñ borom man de dama ragal nangam bii suñ borom ni ko loolee ngay ragal de mu taragal ndax mucc nga ca ndax borom bi subhanahu wa taala kat mooy buur bi nga xam ni moo am kàttan te bind lépp te lenn lu nekk nag mi ngi ci coobare borom bi subhanahu wa taala mu ni nag jaam mu bëgg bu fekkee dafa dëppoog nag li nga xam ni moom la ko borom bi subhanahu wa taala tànnal nee na borom bi subhanahu wa taala daal koy jox loolee nga xam ni moom la doon laaj nee na nag bu fekkee dafa dëppoowut ak li nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala tànnalan ko nee na bu ko defee borom bi da koy wëlbati jox ko lu gën ci moom nga xam ni mooy li nga xam ni moom la doon sàkku mooy la gën ci la muy sàkku la ko borom bi jox nee na nag loolee muy ragal nag nee na léeg-léeg borom bi subhanahu wa taala dafay jëlee jëmmi la muy ragal ak jëmmi loolee waaye nak nee na léeg daj da fay jëlé lamiy ragal ci jëmm jojé waaye nak man na fa bàyyi jëmm ja mu joxé ci misal ku melni Ibrahima sawara nga xamni lañ ci ragal moy lak ga suñ borom nee na jëlewu fa jëmmi sawara ja waaye jëmmi lak ga nga xamni mo lañ ci doon ragal ci sawara mom la fa borom subhanahu wa taala jëlé muni ak ki nga xamni moy mooy alayhi salam lañ doon ragal ci geej moy geej ga labal ko waaye nag jëmmi géej ge borom bi subhaanahu wa taala jëlewu ko fa waaye nag wutal na ko jaarwaay mooy jëmmi lab ga la ko fa jëlee daal di labal ki nga xam ni nag mooy na ak ñamu àndalaan ah sëriñ bi di wax ba tey ni suñu borom subhaanahu wa taala bi mu waxee ni laa ilaha illallah mooy di seede amul benn buur boo xam ni def na ko jaamu jaamu gi di jariñ ku dul yàlla amul benn buur boo xam ni des na ko ñàkk a jaamu ñàkk a ko di lor ku yàlla nee na bi mu waxee loolu de mbooleem jaam ñëpp dañoo gëlëm ci nu ñu koy jaamoo ak nu koy xamee dëgg-dëgg nee nag mu wax leen ni leen muhammadu rasulullah loolu mooy yonent bi salaa salaam de mooy sama ndaw li nga xam ni moo leen di wan yoon wi nga xam ni moom ngeen koy jaamoo ak nu ngeen koy wéetale nee na borom bi daal wax yonent bi salaa salaam ni ko balliix moo jotaleel ci li nga xam ni mooy lu war ak li nga xamni mom lañu la ak li nga xam moy lu dagan ba nopi di jëfandikoo ci lu dagan daanaka loolu de mooy yoonu aljana waye nak nek ci lu aram ak luñ sib ak jël lu dagan diko ko ci li nga xamni lu aram la mu ni loolu mooy li nga xamni moy mooy yoonu sawara mu daal wax nak lepp lo xamni mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal na len ko na ngeen ko def waye lepp lo xamni lu ngeen leen la nak na ngeen ko bayyi ndax moy buntu bi nga xamni moo leen wommat di leen jëmee ci seen borom kon nag yal nañu boroom bi may ak dégg akuk topp akuk jariñu tey jaar ci yoon wi nga xam ni moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëddal ci barki borom Daaru Muxti